radiyallahu anhu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man yuxrami rifqa yuxrami alxayra kullahu am na beneen version beneen riwaaye xadis moom dafa ne man xurima rifqa xurima alxayra aw man yuxrami sànq yuxrami lañ indi ñaar yëpp même chose day firi man yuxrami rifqa yuxrami alxayra mu ne jëlee neen ci jaabir ibn abdillahi mu ne moom jaabir nee na mus naa dégg yonent bi sallallahu alayhi mu daal di wax képp koo xamante ne xañ nan la euh, ndànku wolof ndànku la koy woowe ndànku mooy teey tubaab nag ci firi français ci jargon arabe pure douceur dañ koy firi foofu firiwul miséricorde mais le mot douceur lay tombel ar mooy douceur mook lutf benn la mais am na tuuti différence ñoom ñaar ñëpp ci xol lay jëm képp koo xamante ne yàlla xañ na la wala bokk xañ nañ la douceur ndànku teey dal sedd yuxanil xayra kullahu xañ nan la bépp yiw loolu la yéen donc